régime déclaratif dañu koy bañ ñu rejeté ko joxe peut-être comme motif trouble à l'ordre public bokk na ci li ñuy gën di joxe est-ce que motif yu valable la pour peut-être tere une manifestation euh, ci ci Sénégal. pour man motif yooyu valable parce que li ñuy dajale pour tere nit ñi marche wala euh, manifester suñ ko dajale woon pour encadrer leen marche bi dana am parce que. loolu quand même bokk na ci problème yi ñuy njëkk a tudd manifestation parce que il faut que nit ñi xam que li gën a téye démocratie mooy expression opinion publique nit ki soo amee naqar dafa war a am sañ-sañ fësal ko di nga dem réew yoo xam ni sax dañuy dem ba kër njiitu réew ma ba ca giri ya taxaw fa manifester mm-hmm. caricaturé ko donc loolu expression démocratique la gis nga dama doon xalaat nga xaaj nga laaj ma laaj bii sax <laughs> ba ma bëggoon wax man xam nga tey soo amoon sañ-sañ ci réew mi nan laay def mm-hmm. gis nga place de l'obélisque mm-hmm. dama koy baptiser place de la liberté boulevard général de Gaulle mm-hmm. ma baptiser ko boulevard de la liberté nii réew mi yëpp képp kuy manifester saa yu la neexee demal nga toog nga jàpp ne du jur anarchie peut jurul anarchie parce que loolu ci démocratie la bokk. Mm-hmm. expression citoyenne ci démocratie la bokk. xam nga lii renforcer soo xoolee euh, bul xep mm-hmm. yëngu-yëngu yi nit ñi di def. Mm-hmm. wala manifestation yi ñuy def. dina tax xëy na ci saa si doo gis njëriñ bi mais dina tax quand même ñiy jiite réew mi. xam ne kat seen tànk mënatul passé fii. parce que li nga xam ni moo ñu mën a aar ñun ñëpp. mooy li ñuy wax une forte opinion publique. maanaam am na loo xam ni saa yu jógee askan bi yëpp ñoo war a jóg ànd ne ah dañ leen dénk dañ leen jiital waaye sañ-sañ bi ñun ñoo ko moom may ñu leen ko mhm. donc loolu du jur anarchie xam nga Euh, lan mooy jur anarchie. Mhm. mooy nga tànqam lu leen. parce que am na ñu ko jàppee noonu trop de démocratie anarchie lay doon ni nga ko waxee boo baptisé yenn locaux yi ku mu neex marche mi à la fan la jëm maître. mais ku mu neex marche loolu. Mhm. ci charte bi tënk bànqaasu réew mi moom moo ni liberté de manifestation. Mhm. maintenant euh, si kaw boo koy def ci anam yoo xam ni trouble à l'ordre public mais su fekkante. am na ay citoyens yu yaakaar ni justice dafa jeng. ñu ni dañuy ñëw fësal ko mais jaloog dafa am su fekkantee yow nañ dénk justice taxawal nga tontu ñoom dañu def interpellation ñu tel mbir am na lii ak lii ak lii ñoom dañ koy naqarlu dañuy ñëw jooy ko tontu leen tontu leen loolu moo gën a yomb dialogue waaw euh, droit euh, ci CEDEAO ci mbirum arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne président Macky Sall laataa muy ñëw yàgg na ko dénoncé. mais jusqu'à présent gis nañ ni arrêté boobu noonu ba tey jii nii dañ ko maintenir euh, loolu est-ce que nekk loo xam ne dafa reculer loo àq ak yelleef doomu aadama yi nga xam ne fan yee ñu génn rek dañoo célébrer journée internationale bi. waaw xam nga du jël benn arrêté rek ni dafa reculer àq ak yelleef arrêté boobu posé na problème. Mm-hmm. parce que dem nañu sax euh, invoqué nañ ko ba cour suprême daal di ni arrêté bi kii te fekk ne arrêté bi bañ ko jëlee xëy na attaqué wuñ ko woon pour mën ko annuler donc des na mais arrêté boobu je pense que dañ ko war a dépassé maintenant manifestation soo ko encadré euh, warul mën a am problème maintenant est-ce que dellu nañu ginnaaw euh, loolu xëy na foog nga def une analyse globale mais boo ko doon def tey analyse mais am na problème boo xam ne mi ngi ñëw. te réglé ko mooy que souvent quand même on constate maanaam ñi ngi seetlu euh, duut baaraam ni li ci ëpp ñi nekk ci kujjee politique bi wala ñi nekk euh, ci yeneen kujjee yi nga xam ne féete wu ci ci nguur gi. Hmm. dafa mel ni saa ñu jógee rek ñun leen doo leen fi jóge hmm. loolu dafay xaw a. mais autorité administrative yi fan lañ jëlee kon seen pouvoir bi pouvoiru mettre euh, tout le temps est vrai que euh, il faut ñu xayma ko pour mën a xam ndax dañu dellu comme comme wala dañu avancé mais kuy seetlu gis li ñuy tere. ak li mu peut-être li ñu ko nangu bu ñu méngoowul tamit li ñuy tere mel ne moom mooy ëpp euh, fan la ñu jëlee seen pouvoir boobu di tere manifestation maa ngi koy wax sànq régime déclaratif ñu koy tere du du am ndax dañu am pouvoir bu féete kaw. sànq yaa ngi koy tudd constitution bi wala lan mooy problème bi. waaw loolu dama koy jéem a tënk bu gaaw parce que mu ko bëggoon toj day day yàgg. Mhm. waaye nga jàpp ni xëy na dafa am ñaari niveau. Mhm. am niveau bi nga xam ni mooy charte bi nga xam ni moo ëmb bànqaasu réew bi maanaam droit fondamentaux ma mhm. constitution yooyu yëpp mi ngi ci. mu am beneen chart bu ni liberté publique maanaam sañ-sañ yi nga xam ne am nañ ko ci kanamu askat bi yëpp. waaye ñu ni kooku da nga koy def si condition yi nga xam ni la ko yoon mayee dèjà loolu jàmmaarloog na la la nekk ci kaw. ci kaw loolu na ñu may préfet nii même su fekkentee nit ki su fekkentee dafa bëgg a manifester yoon ni dafay yëglu rek. mais comme préfet moom mooy yor pouvoir de police maanaam moom mooy xool li ñuy naan tranquillité sécurité politique. Mhm. publique am na sañ su fekkente mbëbët boobu nar a jëm ci ay manifestation dafa nar indi ay jiixi jaaxa wala trouble à l'ordre public yoon may na ko mu tere mais su ko yoon teree yoon may na itam ka nga xam ne tere nañ ko bu njëkk ba da nga doon def recours pour excès de pouvoir maam maanaam dem cour suprême pour ñu neenal dogal boobu mais dafa fekk nii tey fi ñu toll nii loolu da daan gudd jël benn at ñaari at ba ñu dugal ubbi beneen yoon boo xam ni ci diir bu gàtt jëm ci ñeenti ñaari fan xëy na di nga mën a dem référé ñu àddu ci mais li ngay seetlu mooy su fekkante yëglu naa nga bàyyi ba bës bi nga yëgal ma ko àddu boobu dootul am dootul am solo euh, ba léegi nag war nañu seetaat parce que li ci ëpp mooy li ma la wax risque de trouble à l'ordre public boobu kooku man sama baat ci kaw euh, bu yu ëpp yi préfet di wax man ànduma man yaakaar naa ni tey mhm. force de l'ordre yi mhm. am nañu Euh, capacité encadrer manifestation manifestant yi seen bopp sax am nañu encadré euh, seen manif soo xoolee manifestation yi ñu mës a autorisé yëpp mm-hmm. est-ce si gis bu débordé wala bu am problème mm-hmm. parce que quand même ñi nga xam ni ñooy def lool am na nañu conscience am nañu responsabilité mm-hmm. am na ñu nañu matuwaay organisé donc euh, yaakaar naa ni xam nga dafay jur leneen xam nga sama mbokk kii dañuy naan de l'oppression naît la résistance nit ki su fekkante jàpp nañu da nga ko fi fitnaal bul day fippu day fippu et loolu aussi baaxul parce que dafay jur tey beneen image day jur ni soo nee bul def man la damay def. parce que bu boobaa yoon. te mun na andi anarchie yoon tënkatuñu. alors maître euh, sànq Fatou mi ngi koy wax par rapport ak euh, euh, li nga doon éternel défenseur des droits de l'homme mais xëy na laaj bi da ko accès peut-être ci ñàkkum autorisation yu ci bari ci marché yu bari mais de façon globale Sénégal boo ko doon boo ko doon boo ko doon noté ci àq ak yelleef doomu aadama muy droits humains est-ce que ñu ngi wàccoon teg moom carrément sa njàngat rapport ak loolu parce que dañuy gis euh, études yu bëri buy génn Sénégal moom euh, daanaka day bu jëloon daara it position muy am du baax loolu par rapport ak droits humains. waaw non li ma mën a tontu ci mbiram droits yi ne. Mhm. mooy da ngay xaajale ñaar. su dee sart yi maanaam li nga xam ne xëy na moom moo koy maye sañ-sañ yi. Mhm. yaakaar naa ni fi mu ci toll baax na. Mhm. mat na am nañu lu bëri am nañu lu bëri loo xam ni ñeneen amuñu ko. comme ni ñuy toogee fii. wax suñu sañ-sañ. am na dëkk yoo xam ne amuñu ko donc provision bi am na su dee ak wàccoo bi nag. il faut nit ñi xam lan. droits humains xeex bu dul jeex la du bul mës a jeex képp koo mës a jox nguur wala pouvoir dina seet yoon boo xam ne dina la nootee toog sa xaw donc xeex boobu da ngeen cee war a taxaw xam nga. sama déggee nit ñi ni waaw constitution may nañu droit de marche wax eh. may nañu ko waaye suñ ci toogee lan moo tax uh-huh. moo tax kooku xeex boo xeex bu dul jeex la combat éternel waaw uh-huh. kooku moom xeex bu dul jeex la uh-huh. maintenant buntu xeexukaay yi uh, am na buntu xeexukaay yoo xam ni ci yoon la am na buntu xeexukaay boo xam ni askan bi la maanaam opinion publique lii nañu bëgg lii ànd na ci laakaar naa ni loolu lu am solo la ci wàllu démocratie. Mhm. su may notee Sénégal nag du ni am na note bu baax.